message bi ma leen di lancer mooy message wu gëm yàlla sopp yonent bi wóolu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani message boobu nga xam ni depuis bi ñu créer daayiratul iman ba léegi le 10 octobre 2004 ca daayira bu njëkk ba ba tey mu nekk section yu bare au niveau national et international message boobu mooy message bi ñuy mës véhiculer gëm yàlla mooy tax lépp luy sunu farata ñu ñu motal ko la mu ñu sant ñu def la mu ñu tere ñu bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël biñ koy jël def ko suñu xol mooy tax du ñu dem sans yonent bi lu ñu am yonent bi moo nu ko gënal ndax mooy le meilleur des êtres créés waaye wóolu Mawlaay ma Ahmada Tijaani mooy tax fu mu ñu joxañ ñu dem fa te defe naa ni ku xool xadara bi xool leen ak seen détermination seen engagement ak seen volonté bi may ñëw léegi maa ngi koy wax mbokk yi fii ma ni bi may yéeg ci oto bi di wax allahu nuru la ilaha illallah mbooloo mi ma gis ak seen volonté dama geestu ma ni dama yërëm iblis ndax bu doon tey bëggoon na jeunesse bu mu yóbbu perte na jeunesse bi waaw ndax ñii ma gis de yàllaa leen gënal lu nu am yonent bee leen gënal lu nu am Mawlaay Cheikh leen gënal lu nu am waaw waaye fu ñu ma tegee bët seen xaal ci xayb ak day mel na nii la waaw ñooñu xaw ma kan de waaye iblis ñàkk na leen na seeti ñeneen mais ñii ci daayratul imaan iblis ñàkk na leen ndax ñii du ñu ni détourné du ñu ni yàq seen xel du ñu ni wax ñu lay déggal ñi xam nga ban kàddu lañuy dégg kàddu yàlla bu jaar ci yonent bi jaar ci Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani mu wax ma ko ma wax leen ñu jëf li mooy sunu dund mooy sunu devise ñun daayratul imaan